meilleure agence de voyage bi ñëpp doon wër EBG voyage moo leen di may seen série Aïda EBG Voyage. EBG Voyage, c'est des ventes de billets d'avion, attestation de billets, réservation d'hôtel, assistance visa, pré-inscription à l'étranger, Hajj, Omra, Ziara Fez, assurance de voyage et automobile. EBG Voyage. Nous sommes à Norfoire, à côté de Yum Yum. Téléphone 77 686 33 33 ou 33 801 98 14. Notre mail service.ebg.gmail.com tey dama naan café. lan mooy loolu. almas sonné. sama rab yi ñoo ma digal quoi. da ngay foo wala. xam nga dama lay tooñ nag. waaw xam nga sama diggante café. moom jaaxal. mos nga gis ma delloo café man. mosul ko duggee. Hmm. lan la. dafa tàng. Hmm. kon tey du Nalagad ka mo, sugod ba? Lay pa Nga jonge defar fere nga ko do lu da ngay wéy wéyul fii nga fekk man tàkku bi nga da nga am takk sa xale bu ndaw loolu indi ko mu sëy si fas yéene defante ku mu defanteel koo ba mel ni man dootu leen ko defati Pa Omar nee naa la bànneexu sëy boo ko amatee man tàkku bi maa la ko jox wala yow déggoo loolu wuy ma dem naa sa waa ji ma boole ba ñëw jox na ma li ma waxoon yow nga ne loolu moom la ñuy nelawale ñu war a opéré manda waru wala lanna Paman min o mi metti mo ne che Paman. Paman Bauman Paman. Paman Baumare hmm? Nulla adi Nulla macam mu ma maa jàmm du jàmm kay. xaju guddi bi xam na guddi sax dafa jotu saa dik xamou ban heure mo jot yow sa nelaw yu metti yi nga nekké ni c'est pourquoi. lan dama gëmentu rek lan la. da nga ça fait 2 jours bi nga ayé ci man ak légui té nelaw rek nga nekké ak man ma nekk ak yow nga melni ku nekk ak sama romu gox ci bi nekk bi. d'accord dégg naa li nga wax ma s'il te plaît. dégoma gis nga sama ay bi. boo ko fi ayee dangay def li la war ci man yaa may dégg yow xanaa yow dañ laa jox nga naan wala dañ laa sunguf wala dañ laa reen lan la doo ayee feneen def fa lépp loo fa war a def ñëw ci man fii jàppee ma loo ma jàppee wala man dafa dama la deful benn effet. man tànn na indi sama biir rek su ma la woon dama la indi sama kër damaa sonn di nelaw rek. Paa Mar de du ma tëdd de. yaa ma na takk ma indi ma sa biir kër ma nekk ak yow ci benn nekk ngay nelaw matin midi soir pour la la loolu dama ne dama ne nga ubbi sa nopp yi bu baax nga déglu ma gis nga sey bi mu nekkente ne danga ma nar a indi ba sa kër fii di dund ak man lii nga teel ma wax nekk mati manal naam nga ne ma nii lay continuer ma teel a xam lan laay def lan moo la damay nelaw damaa mënatu la nelaw lan moo la lu moo la sama nelaw moo jeex nelaw yu jeex sama nelaw moo jeex yow ba ma def nga fase fase nelaw yu jeex yaa ko fase de kenn fasale woowu la ko yaa toog ba mu neex la nga ne ko may naa sa baat ah bu fekkee moo tax sa nelaw jeex la moom bay ba nga xam ne moom <laughs> di nga yeexe nelaw dama doon kaf ak moom maa ngi kaf rek moom moom dof la may kaf rek mu def ko dëgg yaay parce que kenn du ko kafe demal nga tëdd boo tëddee waxtaan sa njegenaay loolu la gisee de parce que moom kenn du ko kafe li nga dund ak man nii c'est frustrant waay pas grave, hein. Excuse-moi, je dois répondre. Lan là, Mati Mati, qu'est-ce que t'as Mati, non. xam nga la jël jugóob ñoom ci néeg laa la wax. du ma la ko waxaat de. fenn laa demul. Mati, qu'est-ce qui se passe non du dara Ben wax bu sew la rek mo fi ay histoire. dara la xam nga ki lan la nekkee ak man nekk ci biir néeg bi di nelaw comme bébé. c'est pas normal. est normal loolu. c'est pas normal. Ah, yow boo fàttee nag ma fàttali la Paa Omar tu oublies que ne man biñ ma muuree ma yow sëy ci yow ak léegi yàggul. man nekku ma ndànk laa la wax. li ma naqari laa lay wax man nekku ma fii nga may mukk mi ci suuf may noppi de. mayuñu la mère mayuñu la màgget xale bu ndaw lañ la may sëgam ñee sëy dem aller retour ñoom nga mën a jox li ñu moom mastama ak man. fi mu gën a loo ci xam néeg bi saa bu ma duggee ba xoolal be rek sama xol bi di bëgg a wat <laughs> waaye tawar ak ci rek ah wéet nga lii ko nag yaa ngi réccu yaa ngi réccu moo tax nit bi yëpp a wéet naanu ma la nag dama laa wax dara rek mais waxtaan naa ak rakki daado pour waxtaan ak nga ak kan rakki yaa wax rakki daado sama xam na mu tudd sama problème yow yée ngoon a jàpp tooñ nga ma nag tooñ nga ma de rakki daadoo waroo koon a wax sama problème waroo nga woon a wax de ama doole ba ñaa yaa ngi ñàkk bi la man maa ngi nii di dem sama yoon koo jam waaye fu ma dem baax ah ba doo dem géej yaa xaro ji njaay njaayee ñaw wala géej di nga rek nag ñi di di nga rek nag jéeg yi nga xamante ne dem nañ aller retour ñëw defal li la war man xale bu ndaw ñu jox ma la nga may minimiser di tëdd di nalaw sama wet di xaran comme pas possible lol pour lan la. Mathi s'il te plaît. paie eh, daa taa teg ne man lol duma ko nangou tay duma ko nangou suba duma ko nangu. Mathi s'il te plaît il se fait tard. dafa guddi y a des gens qui dorment quand même. man loolu sax laa wala man kenn duma ngap ndax ya Parma s'il te plaît. Parma elle a parfaitement raison Wa deug fa yalla li nga def dara rafetul

爸，我妈，没。哦，没。 Pierre Ça va Ça va bien. Tu as bien ci loolu. Mm-hmm. maa ngi nii alhamdulilah. yow kon yàpp la ngay bon fajar tey doon nelaw. Mm. doo nelaw sax. ndax maa ngi la dégg ngay tal tal tal tal tal tal mel ni bool bu bees. amuy nelaw doo bàyyi nit ñi nelaw. Yeah, et France. C'est pas, euh, c'est, c'est différent en fait. Donc du coup, ñoom laa doon waxal dama leen namoon nga. waaw léegi sa xarit yi ñoom ñooy nekk ñun duñu nit léegi yéen yéen a ngi waxtaan nekk ci jàmm ñun nelawuñu. yaay bu wax loolu mais à un moment donné c'était pas moi Mais ngi nekkoon si euh, salle bi di wuy téléphone Pa Omar euh, Mati elle est venue brusquement euh, dans le salon. faaw ma yàggul tuuti mu ñëw foofu noonu ñoom ñaar dañ doon xuloo de xuloo bu metti sax. coow ma dégg kon du yow. du man Pa Omar la ak Mati. Pa Omar du na de Mati moo wax mu ne ma ko ay te Pa Omar Mati xale la wax dëgg fa yàlla am na yenn yoo xamante ne moom ça ne se fait dafa nekk ak nawleem d'ailleurs wax naa ak Mati pour mu dem tëddi. Mais j'ai parlé avec Paomar, nena que si le que c'est pas juste. Yay, wahala Paomar, parce que mon. Rafetoul, hmm, qui est Khalebounda ou là. li nga wax daal leerul sama bopp li nga fi wax leerul yaay Mati moo ma wax ne que deux jours yi nga xamante ne Pa Omar foofu la aye

dinaa wax ak Paa Omar dinaa ko wax ak moom incha allah. ah waxal ak moom de. sa doom la. xale bi bànneexu sëy nekk ci boppam yaakaar naa ne mën na maa jugal sëy. suba ak jàmm naa woo Paa Omar wax ak moom. baax na man maa ngi dem nekkaat samay. waaw bu nett la amee nga ñëw nett. Eh, eh, eh, bu wax amee nga ñëw wax. bu waxee nga ne Paa Omar laa àndal. No, en fait loolu pas au moins nga ànd ah da nga doon nettali si. xaaral ma dem eggali sama livre bi. waaw lu amaat nga ñëw. waaw bu ko tijjiwaat nag dégg nga. boy ku geus sa bët yi xam am na lu doxul sa kër lan mo xew man sa xawmako wi ma te nga gaaw instant bi njaay ra jax dafa am problème ak jabar te suba bu léegi mo may wo njaay la jax kañ la fi tak jabar ak la am problème ak jabar ji mais boy so sérieux way njaay du nit dawru am jabar d'accord balma ma problème man mënuma li am kilo di li liibaru njaay booy xamul waroon ñaari fan yi dama aye ci mati mais nelaw gu laa fay nekkee te nag li ma gën a jaaxal mooy ma la wax man lii laay nelaw en plus de sommeil profond. ah bon lu waral loolu xanaa da nga stressé wala da nga sonn mais <laughs> liggéey bi tamit da nga koy wàññi de da nga koy wàññi bu baax a baax a baax. non mais je pense liggéey bi la war a doon. ah mais man Guèye man yàgg naa liggéey. man liggéey laa ma sax xam te li masuma dal deux jours d'affilée te du ko xew en tout mais bon est-ce que yow yaa ngi seetlu benn affaire boo ayee sa aawo nelaw yi ngay nelaw moom mooy de boo ayee sa ñaareel bizarrement non nee naa lii c'est la première fois sama àdduna may doon dal ah leen de mag ñi daan nañ ko wax mënul yamale mënul am ñaay jabar te xam naa la problème waxu si dara te booy yàlla def na am na ay pexe yoo xam ne lu ne sañ nañ ko mais booy il faut nga woo say jabar toog waxtaan ak ñoom nga xool lan mooy solution bi ak problème fi mu nekk d'abord man aw ma jabar mais li mu bon bon xam naa jigéen ñi communication rek mën a def pour mën a ci li nga nekk wa ila na seetlu bu baax bo ay sa sa aaw bi yeen comportement lay am c'est mieux hein. baax non c'est la vie c'est la vie laa tu baye xel ah mo gën hein. عيلة جبتك بايو balago khalilulai takoti titakoti takoti takoti eh sañ nga fay rew xol ko nak muy re melni dafa xam limay wax ki deugar na fi de lan la ci xam nak gis nga ko kanamam bu ndaw bo. xam nga ne yow rek lay nduro nu muy nduro ak man xool ko mais nag xam naa ko war lay doon de. yow kese la. su ma tëjee waaw de. doo man maa naa. Hmm, eh, ba jàmbur la. indi sama doom sax naa ne boo ko yàggee di yor yaa ngi de. yee day dox. indi indi sa ah, ay bu ko gaañ. dama ne sa jikko ni da ko yor indi. ndànk ma eh, rek. ndànk rek ndànk na maa ngi dem de moom kii. Uy. Alaaji. ñoo xool suñu tournée bi nag Alaaji. Hmm? Hmm. Hmm. ci dara. donc wala yaa ngi dara bi. ah non xool naa daal bët moom ñaar laa am kii dina jël gauche kii jël droite comme neex gis nga ma duggee ci salle gis la nga téye sama turandoo li nekk sama xol bi rëy na trop. dama ko naan. trop sax. Oh. mais c'est normal <laughs> c'est Alaaji hein. comme d'habitude te nag xanaa xamu ni mbaam wéq na doomam waaye bañu ko te c'est le sang nag sama deret la moom ma ko bañ mais bon bu dee gërëm yéen laay sant ak gërëm. man waxuma ça ça ne me disconvient la ça ne me disconvient pas man bëgg ngeen mu ngeen ma bëgg kenn waxatu ko tàkko mais ni ngeen jàppee xale bi tout tànk bi ni nga koy teralee di ko dalal bu jooy maanaam dérange ngeen bëgg ko Pape Omar noonu rawatina nag bi ma ci gën xam nga saa ji boo mais noonu la bëggee xale bi moo tax moo tax daal kontaan naa daal wax naa la nga bàyyi loolu

mangi ngi togg khamantin ni sama diggante biisu bés bu ñoré ba ma yekk ngir yalla bu fi dugg ci dara njublam nak di yàqal sa bop njublam yu biisu xam nga ni càppaa coli la ben la ci nday ben ci bay papaam dafa teel a bay bàyyi koog yaayam gis nga fu waxuma la kër kër rek de ay kër loo ko fi bàyyam bàyyil xaalis bi nag man keroo bi li ma ci jot a gis rek maam su ma la ko doon misaal dix mille dix mille yi boo koy compter waxuma la nga def un mètre un mètre non non dix mille koy taqale da koy taqale da koy taqale fii ba Dagana waaw bu jeex nga jugee Dagana da ngay continuer de doo ramasser de dix mille yi ngay compter nga tax noonu ngay àggale waat ak dix mille ba maatam. bu lu neexee nga wéññeekuwaat demat Matam ñu foog ni day jeex nga dem ba Kaolack mo rond-point bustaan bi non fu non nga wor ko wóoraat ko wóoraat ko ci dix ni ba leg xol rek defat ni ñu foog ni jeex na ñu foog ni Fatick ngey jëm nga nga nga def sens inverse rek dugg keur sa mbara ak dix ni ni ngay compter te lima ci neex man lima ci gëna neex moy dix minutes xam na la ko nara jëlaté ben pas par benn du ma ko yàqamti ba pare té sama xalé bi ameelaay bagages yi course ko teg ko ci kon yow daal sa àdduna yëpp xaalis kese la waaye ni nga mën mel ba ma taal moo jaay min papa ma fille chérie comment vas-tu je vais bien est-ce que eh, normalement déjà tellement hâte de te revoir ça va

maa ngi si jàmm an sa dafa génn. dafa génn. Eh, léegi. mu ñëw. Mhm. noo def nag. yaa ngi maa ngi si jàmm bu baax. <laughs> alhamdulilah sant yàlla bu baax. alhamdulilah. Ah. Ah, tay xujja tan aw ji yaa mën a bàyyi tan aw yow ko yaa ma bàyyi tan aw yàlla tere ay tan aw la bàyyi sama doom ji sant yàlla alhamdulilah tan aw naka waa dëkk ba ñëpp nga fa di la laajte ay tan aw na mën naa la de ma def maa ngi nii rek ma ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm tan aw ay tan aw yow bul def nii nag yow tamit nag bul def nii nag bul def nii nag bul def nii bul def nii bul def nii yow tamit bul def nii sant yàlla sant yàlla bu baax EBG Voyage. EBG Voyage, c'est des ventes de billets d'avion, attestation de billets, réservation d'hôtel, assistance visa, pré-inscription à l'étranger, Hajj, Omra, Ziara assurance de voyage et automobile. EBG Voyage. Nous sommes à Norfoire, à côté de Yum Yum. Téléphone 77 686 33 33 ou 33 801 9814. Notre mail service.ebg.gmail.com.